ami internet yi ñuy seetaan à travers Pikine TV ba tey rek ñoo ngi nii ak yéen fii ci yëmbal ñu seet si nag ndaanaan boo xam ne kenn dootu ko présenté te muy euh, Miss Indo Indo ñu ngi leen nuyu. waaw ça va bien maa ngi lay fay bu baax a baax. naka yi tey jamono. ça va bien maa ngi cool. tey nag ñu ñëwoon seet si la. Mhm. waa Pikine TV ñëw seet si la gis la ngay ndaanaan bu mag nag ñu bëggoon xam kan mooy Indo bala ñoo dugg ci question yi. waaw bu indu de avant tout d'abord avant muy commencer maa ngi nuyu sama ñaari waajur yi muy faatu juuf ak docteur Sène euh, di ziare sama yumpaañ yëpp di leen nuyu bu baax a baax indu de dafa doon benn indu boo xamante ne. Mhm. dafa bëgg musique suivre musique en plus te carrière tamit daka kaa bàyyi ci musique. Mhm. waaw. macha allah indu mi jàng. non indu moom mu ñu doon jàng ren ba quatrième laa waroon def mais bi ma xoolee xoolaat damaa dem ba xam ni pour mu concentrer wu ci musique bi moom ma gën a. te musique rek nga bëgg. te musique laa bëgg. macha allah. Mhm. lan moo doon indi ñëw rek choisir euh, musique te yeneen liggéey yaa ngi fi nga nekk xale ak wàllum art ni méttiwee. Mhm. ak yow la moo la poussé daal ci bëgg musique bi. waaw c'est que musique dafa doon sama rêve daal. ndax mhm. depuis bi ma nekkee xale ba léegi dama koy fooyee waaw di ko foowee di ko kafee daal. bu mu mhm. mujjee doon dëgg. Mhm. daanaka daa dafa mel ni jeunesse euh, dafa dafa dafa defoon benn concours. Mhm. di sélectionné daanaka ci ñooñ laa bokkoon mais c'est que li yàlla dogaloon rek. sama numéro da leen réeroon loolu moo taxoon.

ak ni nga koy dundee. Mhm. lan lay def ban passion ban yëg-yëg daal nga ci am. non dama ci dama ciy fier daal. bu su ma koy wax daal. ak critique yeeg yooyu. Mhm. lépp lu ma ci mënti dégg baax na xam nga fi Sénégal la daal Sénégal dafa métti yéen saa nga dégg indi mënul way indi mooy sama waykat jaykat yeeg. <laughs> waaw yaa ma gën a xam xam nga rek koñ bi mooy loolu. waaw mais tamit boo bëggee dem doo déglu wax wax nit ñi de. waaw mhm. ah, lu ci bëri dama koy sóoraale. xam nga kon Sénégal lañ nekk nii rek. soo bëggee dem damay moytu lu bëri. Mhm. bañ a dugg ci détail bëri concentré wu ci nga bëgg ndax c'est que ah dafa doon loo xamante ne il faut nga concentré wu. macha allah est-ce que say parents d'accord nañ ci. non bien sûr sama yaay d'accord na ci sama papa d'accord na ci en plus samay mag d'accord nañ ci. macha allah. Mhm. am ah. mais. inscrit naa pour am ménage. des fois duñu la invité si anniversaire yeeg yooyu pour nga def ay acapella yooyu. non même pas mais ay kermesse daal bu amoon damay dem ñu lañ may woosi ma dem après yaa ma gën a xam. Mhm. wala fa sama bopp mais bi ba léegi. label jeunesse bi waaw maa ngi foofu mais commencé guñu ma. commencé guñu ma waaw mois de mars bi daal dinañ ko suivre 2STV. jot nañoo déglu say émission say kii euh, album. Mhm. ñu gis si dañ ci bàyyi xel bu baax Aïda Samb. Mhm. pourquoi nga choisir Aïda Samb. waaw su que Aïda Samb wéyam bi dafa doon dafa sori ci man daal. Mhm. ndax li mu ci woy yaay ndax ñëpp xam nañ ne yaay dafa foor waaw. loolu moo tax ma tàmm ko ndax damaa bëgg sama yaay. léegi ñu buggoon nga defal benn ak acapella ñu xool ci ay Aïda Samb bi. ah waaw baax na loolu am na problème. yaay àdduna bett na ma bëri naa sama yaay booy ñëwal nga gindi may àdduna bett na ma bëri naa sama yaay booy ñëwal nga gindi may boo ñëwul du baax yaay booy i sonn naa sama yaay booy ñëwal nga gindi may mënoon naa di xool mbaa muy fekkee lu demew nii boo xoolee yaay booy man sonn naa yaay xam naa ci yow lu ma rusul toog fenn di ko fa wax bàyyi wax naa ci yow lu ma ñemee toog fépp di ko fa wax sama yaay booy sama teraanga bàyyi booy sama kiiraay. macha allah neex na trop. <laughs> yow moom Elisa war na see jot moom. waaw mais si sama boobu est-ce que ni mu génne Elisa jot na ci wala. non même pas bu ba léegi sama bi ma ko génnee daal daanaka léegi mu am 6 mois. Mhm. Mhm. xanaa mënoo am comme que yaay the best. war nañoo mën a am benn lien ak Aïda Samb pour wan ko ko. mais nekkul foofu laa ko defee woon moo tax. ah ok 108 studio bi nekk laa ko defee woon loolu moo tax. Mhm. ak beneen son sax Jeyna. Jeyna men. Mhm. macha allah mooy son bi mujjee génnee man tamit jot naa kàggu ba. mais ñu si kon. ma <laughs> xale baax na amul benn problème. ñu dem si si Jeyna. to c'est yow la kan. Kamu lo mati wax ci man seetuloo bëgg di matam alir bumi ni dudan Nyidi ñi di wax ci samay def def man lima idef def ulai khelal banga def Warat nan kholal limi def eh Nifom sama rongañ dootuma dotu majo nax nak legi khamna Nengit kula koi defal ba mu xëy jok ainop. ay nop waaye taxul ma gëm say wax ay bët nag faw mu jooy ngi suba mën a gis bu baax nit kuy jéem a fay muy boy waaye xanaa nga war koo baal fii ku fi baax tey bari noon en man lii laa wax rooga seenoo njookoo njal njookoo njal nit ñi lëndam nañ yaay ñaanal ma ñaanal ma bu ma muccu ci nit ñi mm-hmm. ku may siiñ de bugguma Kui indi diu bu ak kii bitti dem dem ba jàngal ma ne fii booy dem bu yalla di transi ngi efansi yow lay efansi retracé mën jo ay nopp. macha allah lii <laughs> war ma ko sa allah ne ha trop. Mhm. tay nak dégg nañ ay resamb dégg nañ Dieyna. macha mhm. allah mais est ce que di nga dem yeen say ci mag ñu ñëk ñi ku ci mel Adja Xaar Mbay Kiné la Mam Bamba. do mam Fall. <laughs> ah. incha <laughs> allah foofu day baax tamit. waaw tamit yaa ngi gis euh, seen seen mbokk mi yenn a bokk génération. vraiment. Mhm. Mhm. vraiment Diouf macha muy def. Mhm. it ñuy laaj ba mag ñi moom duñ ci for dara yenn saa léegi daal yaa ngi si xale allah mais tamit am nañ question. pour laaj la ko. Euh, si par rapport ak euh, musique. ba xam des fois sànq laaj naa la ko critique yi ngay dégg. yenn saa yi mën nga poster TikTok wala nga poster benn kii. des fois doo am lu la ci metti parce que da nga bu négative. bien sûr ban a toog mu metti la. parfois mës naa benn son mooy ay bi nga gis commentaire commentaire bu bon. Mhm. mais man damay xam li ma xam rek noppi na xam naa ni ñu bëri dañ lay bëgg a yàqal mais nit ki boo gëmee li ngay def doo dëgloo ko kenn. Mhm. waaw macha allah loolu artiste dañ koy bëgg ci moom parce que nit booy liggéey. nga mhm. surtout nga nekk ndaw. Mhm. loo xool si sa ginnaaw dangay xool lii la xamante ne moo lay avancé. Mhm. macha allah si sa wàllu famille est ce que am nga kenn koo xam ne foo dem moom ngay àndal moo lay protéger moo lay euh, jox ay conseils et parce que artiste du ñàkk genre nit yu mel noonu en fait. waaw loolu moom dëgg la waaw su ma jugee ci loolu mu ñëw ci mag ju baax ji lay Fatou seen ndax su ma demee ba egsi fii daanaka moom la. Mhm. moom macha allah su ma demee ba egsi fii moom dafa mel ni moom moo tax. Mhm. maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. macha allah est di nga def gis des fois yeneen label bi dul Ja Best wala di nga am ay kii euh, kilifa yu lay woo sponsor genre détail yu mel noonu daal. non comme genre dafa mel ni tey lañ may soog a Ah, proposé yu mel nii. invitation waaw tama sant yàlla bu baax a baax. Pikine moo mën Pikine moo nekk sama première invitation. macha allah. macha allah yéen tam maa leen sant bu baax a baax. ñun tamit ñu ngi lay sant bu baax di la jaajëfal. macha allah da ngaa mignon sax. <laughs> merci ah? beaucoup. mais carrière bi boole woo ci tamit ay affaires yu kii yooyu. faratu yeeg. même pas xale góor dañoo doy waar. <laughs> Ah? non loolu yëpp dama kaa jël kan indo kum nekka no in nekku ta kenn in music bi la nekkal music bi concentré wu ci kase da ngay top ah kon ñoko déggo top ma leneen du musique nga kon ñoko déggo do mm kan ngay ci sa adina ah kan ngay ci sa adina kan lay remercier sama adina sama ya ak sama pap masha allah ñom lay remercier sama adina masha allah -hmm. kon bok ñoko déggo do mbokk yi indo ngi ni nek jeune talent masha allah ñu leen japp ci carrière mii déjà The Best yeneen label yi war nañoo taxaw jàppale ko ndax ndaw Sénégal la te mi ngi way lu neex ñu topp ci Aïda Samb Dieyna macha allah mi def ay fi boppam su ko defee mbokk yi rek ñu xool son yi nga xam ne indi moom la fi indi woon diggante bi mu nekkee Mbour ak Dakar muy son yi neex macha allah yu daw yaram ñu daw xooli ko te ñëw. goodbye. boy maa ngi ngeen sama bi nga xam ne moom la ñu indi indi lool su ko defee ñu delluwaat rek ak indo indo mhm. ñu amaat tamit ay questions yu bëggoon poser rek ba xam euh, da ngay rester the best wala euh, ñoom da nga faa signé wala da dem pour fay non foofu damaa dem pour jàngi ji mhm. Mhm. kon da nga fay jàng nii damaa dem pour jàngi ji macha allah est-ce que tamit euh, Indou mi ngi waajal ay concert ay soirée Indou daal lan lay waaj lan non indi daal li muy waaj li ci kanam daal raw bët ngeen toog daal déglu ko. incha allah xalaat daal si yow single. Mhm. wala album wala genre. waaw lépp mën xale daal nañ ne su may ñëw doole laay jugee. doole ngay jugee. Mhm. macha allah doomu Mbour bee ko wax ne ne doole lay jugee buy ñëw. <laughs> Uh. c'était votre euh, émission avec Fakki Jamil ñu daal di bàyyi euh, Indou ak ay dernier mots mu tàggatoo. Mhm. Indou ñu ngi dernier waaw su ko defee rek maa ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax di nuyu sama yumpaañ nekk ci kër gi yëpp bu baax a baax man daal kontaan naa. kontaan naa mhm. macha allah kan ngay remercier waat. <laughs> waaw maa ngi remercier ñëpp su ma limee damay juum. Mhm. Mhm. sëñ bi rafet na macha allah. <laughs> merci beaucoup. waaw ñoo ko déggandoo mbokk yi su ko defee rek ñu daal di tàggatoo ak yéen nuyu sama caméraman bu ñaawal bi El Hadj Moustapha ak tonton Ousseynou <laughs> ca kër ga te yi ñuy woo di ñuy wax di ñu conseiller macha allah di ziarale tonton yu Seck ma ci Amérique. Fage Jamil nag tey daa sañsee ki ka sañseel muy Seck non stress dinaa leen Seck bëgg a jóg suuf dem leen seeti seek xale yi ma nga foofee ca Pikine Icotaf di leen jox numéro bi de 77 053 29 25 xale yi doo leen seeki seeti seek no stress macha allah lu rafet lay ñëw lu tuwaabe lu am classe loo xam ne mën nga koo yóbbu fu ne te ni boo bëgg nag am na ko acee ñu daw maa ngi ziar ñëpp nag di nuyu ñëpp waa à chaque fois nu ma koy waxee rek su may ubbi sama yaay lay ubbee su may tëj sama yaay lay tëjee. parce que moom laa am moom laa xam te moom laa te moom laay nawloo waaw mm-hmm. su ko defee wallaay ku sañoon am yaay ju mel ni yow mm-hmm. su ma la amul xaw ma fu ma jëm ni man damay jigéen yaa tax ma doon góor ah ma ngi lay ñaanal ah yaay mm-hmm. ah baay ma leen di ñaanal di ko sàkku ngeen yàgg fee ah yaay non sama xol la féex. macha allah bàyyi ma yegg foofu noonu allez ciao.